asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 8 septembre 2020 ñu wax yéen ci yëglikaay suñu lamb la xëy tey doore ko mu mel ni ki ki nga xam ne nii kaay bi nga xam ne moo di suñu lamb bokk moom daal fa mu xëy génn tey fenn la ki nga xam ne nii moom moo di Mame Waly Diom Mame Waly Diom nag xaritub Yaxya benn bakkan la moom nag moo xëy tey ñëw di wax ci fàttali combat ki nga xam ne moo doon Yaxya Diop Yékini wala ancien roi des arènes ba ak Balla Gaye numéro 2 ne na jamono jooj daal ne na ñëpp ñëpp ñëpp ñu newoon ci lamb ji wala ñu bari bokk bëggoon combat nee na moo tax la ca am am ca waaye jàpp na ne nga xam ne moo di jof yor moom toujours daal ñu ngay fidèle ca ka nga xam ne nii moom moo di Yékini yemu ca moom waali moom waali joom am na keneen koo xam ne mu ngi koy jox ay xalaat muy docteur Alioune Sarr nee na su ma nekkoon place sam moom ba tey génn naa dem bàyyi làmb ji wala boog ma jox keneen mu jiite waaye yemu ca de am na leneen loo xam ne mu ko koy xelal nee na même bu demee itam expérience ak xam-xam ba mu am daal nee na war naa ñëw jege ka nga xam ne mooy jël place am jàppale ko bu baax a baax maam Waly Diom daal tey moo xëy ngar daajoo yëglikaay bi nga xam ne moo di suñu làmb di fa wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tam ñëw na ca yëglikaay ba di wax muy Bekaay Mbay ma ngeen xam ca 2STV wala boog ca Bantamba TV wala FM Sénégal père Bekaay daal la mu xëy di xam leen lenn la mbirum fédération moom la jàpp ne bu ko ko kenn wax ndax moom loola tey àndu ca tey suba waxi noppi maanaam daal moom la ko gënal comité bi nga xam ne moom mooy comité national bay stationné maanaam di CNC loolu la Bécaye jàpp ne daal loolu la fi ne waaye lu jëm ci ay mbirum fédération moom Bécaye ne na loolu bees ko wax bi heure loolu la Bécaye Mbaye gis keneen koo xam ne ni moom yëglikaay bi gis na ko muy ka nga xam ne moo di Balla gay numér 2 ak ka mu àndal fan yi mu koy yokk wàllum dooleeg entraînement xel muy baabooy le lion bokk ak mi nga xam ne moo dëkk ca Géejawaay Gueye de daal mook la mbaroo di da Pikine daal fan yi moom ñu ngi ci liggéey bu tara tara tar sunu làmba xëy ñëw wax nu ko ñeneen ñoo xam ne nii moom fa ñu langaamu tuuti mu baax muy waa jàmm ji bu kër Mbaye Fall écrit booba daal yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ak six victoire ya nga xam ne am nañ ko ren ak ñetti défaite yëglikaay bi du sunu làmba sunu làmba xëy ñëw tey jox nu boobu bilan ci boobu écrit mu mel ni ki nag écrit booba moom soo bëggee dégg dëgg ki nga xam n moo di allemand moom moom fa mu ko wecc maanaam yëfi allemand daal la def ndax ñaari génn ya mu génn yëpp ay ndam la ca caatu bambara ak ki nga xam ne mooy caw doole tamit ak laay brisli ak ki nga xam ne mooy iboo ñoom itam fëgg nañ bu baax a baax yëglekaay ba moo xëy ñëw wax ñu ko déception yi nag moom saamaan la ak saa kaaba ñoom daal ay déception lañ yoo xam ne yu nganda ngan lañ ca fa nga xam ne moo di jàmm ji bu kër mbay fall ka nga xam ne moo leen di tàggat tamit ñëw na ci résultat yi nga xam ne daal am nañ ko muy ibrahima jonn yëglekaay ba xëy ñëw tey séq waxtaan ak moom keneen koo xam ne séq na waxtaan ak moom ka mu séqal waxtaan di abdoulaye démbale muy laadum ma nekk ca roog énergie nag ña mu bëgg a bëre wala ñi mu jàpp na ay adversaire am daal la xëy sampal leenum ndënd na leen nañu ñëw ñu bëre ñu ne ko ku ci njëkk mu ne maama yaabu tëngéej man ta wax a wax ba du ñu bëre ak ka nga xam ne mooy brise de maire ma nga xam ne mu ngi ca Grand Médine moom itam jàpp na ne daa war a ñëw ñu bare ak ka nga xam ne moo di tafaa leer mu bawal ne na ñii daal moom mënuñoo wax a wax ba maak ñoom duñu jàmmaarloo bëree loolu la waxi loolu la laadum xëye tey keneen koo xam ne combat bu muy bëre siiwaloon nañ ko ba ne dañ koy bëre far coow tàbbi ca muy Gris Bordeaux mu mel ni ki demee ca Leewtoo point net moom Gris Bordeaux am na ku ko jege koo xam ne daal xam la ne na daal li am ba des moom 10 millions yi leen Gaston Mbengue di laaj ñu ngi ak moom waaye fekk Gaston mu ngi génn ci presse bi di wax duñ ko jox tey xaalis bi suba waxi noppi xanaa bu noppee te bu noppee itam ko koy joxe maanaam daal dañ ko koy daggal bu dee million joxe woon ñu jox ko 1 million bu dee 2 ñu jox xaaj ba daal lay déglu bu noppee rek mu delloo ko ya nga xam ne noonu la ko joxoon ca nam ko ko joxe woon Leewtoo point fa la booba xibaar ne leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay ba nuy wax record moom buñ fa demee daa xëy ñëw tey toppal ñu Balla Gaye 2 ca la nga xam ne arrivé na ko ci 2014 jàpp 2017 mel ni am na ca ñaari défaite ak ñaari année balance mel ni que nag ña ko yóbbewoon loola ba mu dem exil daal di daal li nga xam ne moo di gàddaay ga mu ko mooy Bombardier bu Mbuur ak nga xam ne moo nekk ca Pikine a xëy ñëw wax nu ñoo xam ne record ñëw na ci ñoom ci ne def nga kees combat waaye ba tey ay revanche moom jaara guñ ca muy ka nga xam ne moo di rëg-rëg Siteu Sa Thiès ki nga xam ne moo di Garga Mbossé ak ki nga xam ne nii moom moo di Boy Niang bu Pikine ku ci nekk daal la nga war def ci làmb yaa ngi bëre boob ba tey ba bëre lu toll ci 15 combat waaye revanche moom joxagoo ko nit wala nga jël ko ci nit yëglekaay bi record a xëy ñëw wax nu ko jeneen doomu Pikine na ngi joo xam ne ni daal blessure bu ko damoon lu yàgga yàgga yàgg ci moom muy Ama Baldé ci làmb joo xam ne ay dara moo ko tëggoon mu mel ni Ama Baldé mbaytin bu géej wala ca bëreeloon amoon ca blessure mu yàgg ci moom lool mu di ko sooxaale mel ni ki nag blessure boobu fi mu nekk ni daal moom la jël nag ay décision ci opéré ko dindi ko ci moom ngir mu set ca wecc record a xëy wax nu ko la ko waral nag du lenn dul jàmmaarloo ba nga xam ne bëgg na koo jàmmaarloo ko mu loo daal daa bëgg bu cay dem moom lépp daal di baax ci aw yaramam wax nu ko ki nga xam ne ni moom dikkaatoon na ba ay mbiram di baax muy lambi simple ja mooy assurance bu mbuur assurance ñeenti drapeau la jot a gàddu ren moo tax nag moom nee na mu commencé ren moom nee na daal da gis yoon wa muy neex ci moom waaye corona ba ñëw daal daal di dagg xale mi buum ya mbir ma yàq waaye la nga xam ne tamit naqari na ko mooy élimination ba nga xam ne def nañ ko ko ren fa nga xam ne moo Laat Njaay menacé ba Laat menacé na ba takk ñaareel ca Njaasaan ka nga xam ne nii mooy ma silla Jóob di sëriñu mu loo ba itam moom takk na jabar mel ni kon yàgg maar gaa yaa ngay takk xanaa ma ñaanal la rek yow tamit. maaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour rek dañuy ànd ak yéen seen revue de l'arène ginnaaw bi nga xam ne Babacar defal na leen revue bi ñu daal dem si jàngat bi ànd ak Babacar Babacar nuyu naa la. fay naa la ay sa fay madame Niang. si nekk naka te nekk. waaw te nag mu ngi si jàmm mu ngi am jàmm ñu ngi déggante waaw léegi dañu déggante bu baax waaw bu baax a baax yàlla jaamam yàgg sama mbokk aw boobu waaw waaw waaw laat ñaare takk na ñaareel mënaat sëy ko teel na teel na teel na teel na de kon nañ no ñu ñaanal kon kii di filmer mu takk aawo kon waaw nañ ko ñaanal daal aaw bu baax waaw kon yàlla na ma aaw bu baax waaye bu am taalibe waaw kër Amine ñu dem ci jàngat bi commencé ko ak eh, Mame Waly Ndiom di xaritu ki nga xam ne ni mooy Yékini moom nag eh, ñëw na ci combat xam ne dox na fi nee na nag euh, jamono jooju ñëpp bëggoon li nga xam ne mooy chutu Yékini maam Waly Joom ah sama doom bàyyi la muy nuyu joomeen yëpp rawatina joomeen ya ci les îles du Saloum uh-huh. ah waa Joof yor ak fu joomeen nekk ak yéy sa Fass doom bàyyi uh-huh. maam Waly Joom nag xaritu Yaxya Jóob Yékini benn bakkan la moo xëy tey ñëw di dellusi ci combat ak Balla uh-huh. loolu mu wax nag kan ñëpp bëggoon mu daanu mën na nekk waaye est-ce que ñëpp la en cent pour cent non day lamb saa yu ci duggee ay day am ñu bëgg nga am ndam am ñu bëgg nga am defet mhm. xëy na nag ñi am nañu bëggoon mu am defet même combat yam doon na ñoom ne bëggoon nañu ma am defet moom buy daanu tamit day fekk mu am ñu bëgg mu am defet am na ñoom ne bis bi ko bàllay daan kera lekkuñu naanuñu mhm. kon ñooñu bëgguñu woon bàlla daan ko mhm. mais nag sport moo demee noonu addina moo demee noonu maanaam nga dugg ci dara ñëpp ànd ak yow mm. loolu yàlla defalu ko benn mindaafoon ne bu ko doon neexoon kon si ñun jullit lañ gëm mu defal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. te loolu defe naa amu fa kon li daal mooy que Yaxya dafa jàpp ne ci làmba Balla Gaye dafa nekkoon xale boo xam ne nii bu amoon envie daan ko la daan ci liggéey bi àll def ñu daje ya bëri ak moom ñu bëre bëre bu neex te metti yaa ngi dégg bëre bu rëy feeñ fa xeex feeñ fa yàlla may Balla ndam muy loo xam ne Balla dafa mérito ndam la Yaxya tamit yaafus taxu koo daan ndax la ko mhm. waroon def na ko mhm. sport nag moo tëddee noonu faw am vainqueur mhm. sa fay waaw Babacar ba tey maam waale ñëw na moom jàpp na ne bu doon moom la tey day départ waaw loolu gis-gisam laa nit ku ne yow sa gis-gis am nga droit wax ko moom xëy na daa jàpp ne moom du jiite at yu toll noonu benn kuréel te xëy na moom du fa jógee lool nag am na ñoom ne noonu la ñu gisee te itam loolu yaakaar yaakaar naa ne mën na nekk parce que tey Aïssa foo jiite ba def fa lu war a mat 26 ans yaakaar naa ne ah ku la ne yàggoo fa itam yaakaar naa da wax lu la neex mhm. mais ku ne xam ne ne yàgg nga fa waaw kon nag moom maam waale xëy na moom xam naa bu jiite woon du demee noonu mais nag Alioune Sarr jiite ba yàlla def na xëy na mu def fi loolu xëy na nag d'ici quelques jours mën na am mu wane ginnaaw dem ñu ngi ñaan teg kay ñëw di jël place bi daal yal na ko mate. Mm-hmm. waaw Amin Babacar ndax lépp ci njëriñu làmb lay doon ba tey ci coowal CNG fédération parce que ñu ngi dégg ñi naan dañoo war dem fédération CNG tey nag euh, ki nga xam ne mooy Père Bécaye ñëw na daal di tranché joxe ay joxe position moom. waaw Père Bécaye moom fédération moom nee na àndu ci tey suba xëy na moom daal li mu gis mooy comité national de session bi comme ni mu amee woon waaw loolu nag gis-gis parce que xëy na damay jàpp ne li tax mu koy wax daa jàpp ne pare guñu pour dem ci fédération parce que fédération am na critères yu mu laaj hmm. du loo xam ne da ngay xëy xëy rek plongé ci xam nga ay nga xëy xëy plongé ci géej mel ni man dib séréer xamoon ndox wala mel da <laughs> looy dugg lu nga ko jàngat indi la mu la mu war a àndal la koy gunge ci ay sart ak lu koy encadré ba boo ci duggee nga mën ca am réussite yaa ngi dégg wala nga yaakaar ko ca mais nag xëy xëy ñu naan fédération fédération ba ñu xëy dugg ci fédération te parewu ñu ngir def ko itam loolu problème lay indi kon li fi nekkoon muy comité bi mën na fee ne di saytu làmb ji di ko doxal mais ci biir loolu tamit ñu jéem nag préparé léegi nag ngir mën a dem ci fédération nga xam ne bu loolu amee xëy na kon bu ñuy tànnati dinañ tànn ki nga xam ne nii waa làmb ji seen bopp ñoom ñoo koy tànnal seen bopp quoi waaw waaw Babacar ñu jógee ci CNG bi euh, ci Balla sunu lamb andi ñu xibaar ne fi mu toll nii mi ngi waajal euh, combat am ak euh, Gris Bordeaux te fi mu toll nag euh, Baboy moo jël li nga xam ne ni mooy entraînement bi en main moo koy gunge moo koy tette. waa ñoom ñaar day ku ne xam na ne combat bu neex doxoon na seen diggante ak dëkkante bu metti muy Balla gay 2 ak Baboy. Mhm. yàlla def ñu bëree ko ba pare Balla Gaye 2 après carrière am bëriwaatul ak Balla ba ni mu bàyyee lamb yàlla dawal tamit muy ni seen diggante léegi amitié seen i jataay ñoo koy bokk ndax man am na ci yoo xam ne nii fekke naa ko muy ñaar ñoo xam ne seq nañu relation bu rafet ñu leen di ñaanal yàlla yàlla sàmmal leen relation boobu ndax relation saa yu amee rek mu ñu leen te am na fa jëlee la am fa mhm. kon yaakaar naa tey loolu nag su amee Balla Gaye de expérience bu mu am si làmb ak li mu ci jot a def defe naa ne tey bu ànd ak Balla Gaye de di ko entraîné ngir muy waajal Gris yaakaar na loolu xel nangu na ko parce que li tax mooy Balla Gaye numéro 2 daan na Gris Bordeaux kon defe naa ne <laughs> waaw lu mu wax ci Balla Gaye ci Gris Bordeaux rek Balla Gaye de war na ko téye xam ne ki koy wax la mu koy wax fu lu mu xam la parce que am na waaw waaw waaw Babacar dañuy des euh, ba tey ci lamb ji ak euh, beneen xale bu tudd Laadum nekk fa li ci Rock Énergie moom nag euh, ñëw na samp ndëndam waaw moom de sampal na ndëndam ay tafaaleer ak ñoom mama yaak ñu mel ni ki noonu mhm. moom daal laa doon ne ñooñu moom faw mu bëre ak ñoom mhm. waaw loolu nag mooy làmba uh-huh. waaw làmb moom noonu la ak ku mel ni brise de mer sax boole na ko ci làmb yàgg tëdde noonu xale bu ndaw boo gis muy jóg si làmb rek yaa day rêvé bëreeg ñi ko sut ngir mu mën a dem ci kaw te laa yaakaar naa itam xale la boo xam ne waa Rock Énergie waa Parcelles am nañ ci moom yaakaar mhm. waaw ñu dem ci waa jàmm ji kër Mbaye Fall ñoom nag euh, seen waaw six victoire ak trois défaites moom neuf combats ci écrit bu ndaw wax dëgg yàlla baax na waaw mhm. masha allah daal xanaa gën a liggéey rek te xëy na bu saison a a mhm. Mhm. moom nag euh, mu andi ñu coow bi nga xam ne mi ngi dox ci diggante Gaston Mbengue ak Gris Bordeaux moom nag euh, selon source am ko Gris dina ko delloo xaalis bi mais daal day bàyyi ba Gaston wàññi coow li wala boog euh, buñ koy joxe itam dañ koy dagat dagatee comme ni ñu leen ko joxee woon <laughs> lu doy waar muy coow xam ne daal la ma siy ñaan mooy yàlla na si yàlla def ndox bu sedd ñu déggoo ba mën a régler seen situation lamb ji mën a continuer waaw loolu nag ñoom comme ne nañ dañu jàpp ne fekk garçon mi ngi wax duñ ko jox xaalis bi wala buñ ko koy jox bés bu noppee bañ ko koy jox dañ ko koy jox nam leen ko joxe woon loolu nag

fa Abdou Ndour Abdou Ndour tamit euh, ñëw ci Balla Gaye 2 mais nag dafay ñëw diggante 2014 ak 2017 am na ci deux victoires ak euh, li xam ne ni mooy deux saisons deux euh, saisons blanches deux mhm. muy année boobu diggante boobu moom entre 2014 ba 2017 ku ne xam ne ne Balla moom ci boppam sax xamoon na ne mu ci ay difficultés te pareeguloon pour bëreeti mhm. parce que dafa nekk xam nga mbër am na mbër yoo xam ne Aïssatou fay jàpp nañ ne yan defet yi waruñu koy am moo tax na buñ ko amee dañuy xoolaat seen bopp moom xay na loolu moo ko daloon bi ko Bombardier daanee mu ñëw ñëwaat ci ëmma ëmma daanaat ko mu ne nag kon moom actuellement lii mënu ko continuer di dund moo taxoon mu toog ay at bëréewul année balance mhm. ngir xoolewaat bokkam boo demee ba na yow niveau mhm. dugal sa ci kàmb gi yaakaar yaakaar naa nag la wax rek la tubaab bay wax il faut reculer pour mieux sauter xam naa loolu la defoon moo tax bi mu ñëwaatee itam am na leen lu mu wane waat dikkaat na ba ñu xam ne kon ki fi nekkoon dikkoon na mhm. loolu nag mooy sport quoi waaw ay xale Boy Niang Siteu Reug Reug Sa Thiès Garga ak yenn ki mbër yoo xam ne daal def nañ 15 combats mais ba léegi bëreeguñu li nga xam ne mooy kon làmb day dox adversaire yu bëri jàppal bàyyil combat boo jógee da gis benn adversaire boo xam ne dañ naan mooy potentiel mooy gën a jaadu xëy na moo tax ba actuellement mënaguñu am ay revanche mais bi làmb ji bëreegul ay mbër comme ni mu ko bëri woon at ya ca ginnaaw a ginnaaw revanche yi boo fàttalikoo Yékini ak Balla bi de bëri nañ trois fois. moog Bombardier ji tamit bëri nañ trois fois <laughs> moog Tyson moog Tyson waaw kon loolu mais léegi nag lamb ji macha allah dafa bëri ay champion ay xale yoo xam ne moo tax ñi juróomi mbër yi ku ci ne yaa ngi ci quinze combat voilà a blessure ci loxo mais nag jël na décision dem opérer ko parce tamit ci combat bu capital lay waaj waaw mu mel ni blessure bi ni ñu ko jàngate mooy lu yàgg ci moom par mhm. rapport ak benn mbapat wala benn bëri bu mu seqoon ak mbaytin bu mor mhm. ak moom mais a dem na ah, bi mu jëm rek ama saa yu mu ngi wan nit ñi ni bis bu mu fonk la <laughs> waaw bu mu jox cër la <laughs> uh-huh. parce que itam te itam loolu c'est normal parce que adversaire bi mu ko seqal muy Modou Lo kuñ la ne ci làmb ci moom nga jëm ñu ne la ci lu yomb nga jëm moom ke koy digal pour man dala ko bëgg a xañ mhm. moo tax xay na ama di teel a jël ay defam ci côté bu mu yàq yaakaar na rek war na ko mën a yàqal mu génne ko loolu nag mooy sportif te tamit loolu la ñuy xaar ci Ama Baldé mhm. moo tax ama ak Modou moom la ñuy ñaan yàlla rek lig ni ko lay ñu ngi koy ñaan yàlla mu réussir la parce que nekk na lamb joo xam ne Aïssatou Faye ay bis boobu yàlla nañ ko fekkee te tal ko yàlla si yàlla yóbbu ak jàmm fekkee ko tal am si gudd fan ak wér gu yaram na daal kàttan te nag abu andil ñu assurance assurance bu Mbour mhm. moom nag euh, li saison bi di gàtt gàtt gagné na fi 4 finale am 3 millions 545 mille francs waaw mu mel ni kon daal saison ba muy gàtt gàtt assurance xaw na wane boppam waaw assuré na parce que 3 millions yu tegal loolu moom ah, yaakaar naa yëngutu bu am am solo loolu nag moo lay wan ne li ñu war a jàngate muy mbëri simple yi tey nekk si làmb di xaar benn combat boo xam xamoo kañ nga koy bëre defe naa nga delluwaat fa nga daan dem di bëre simple di am sa xaay di am sa weccet dafa am solo kon assurance ñu ngi koy félicité parce que mook pakala dañu am mérite mhm. parce que tey ñi xale yi ñu ko seqal mhm. ñoom di compétir tey xale yi gagné suba ñu gagné leen mhm. loolu moo lay wan nekkoon ñoom ba tey li nekkoon ci ñoom daa ni mu ngi ci ñoom donte seen ay at xëy na mu ngi avancé tuuti tuuti waaw kër euh, ci loolu la tàggoo ñi xam ne ni ñooy suivre seen rubrique euh, revue leen ñaanal jàmm di ñun dootuñu di gisati sax euh, cas di ñaan yàlla activités yi pour reprendre di leen ñaanal yàlla xaalis bu bëri comme ni koy waxee chaque jour ngeen ngeen mën a seetaan euh, vidéo yi parce que tamit ci poche lay jóge ci poche lay jóge waaw du mën a ñàkk xam nga internet yi moom kenn du ñoom mhm. kalaasu Cheikh Bass gi ñoom ñëpp ay Ousmane Diop ay Mamadou mhm. Kalo Diallo Benzema gars yu bu ñu leen limee juum mhm. xam nga ñoom ñëpp dañ leen ñaanal yàlla ay tuuti yaay xam nga xam mooy Ndongo Fall Italie Abdoulaye Mbaye États-Unis d'Amérique ñoom ñëpp Mor Ndiaye borom montre yi ki baax ci Babacar ñoom <laughs> ñëpp nga leen di ñaanal jàmm di la ñaanal connexion yi di ñëw ak sama xarit maa ngi leen di nuyu mais di tafit defal <laughs> nga li ma sol tay ci ci maa ngi koy ñaanal jàmm di nuyu waa Petersen yëpp rawatina xaritam yi ñoom Cheikh Lambaye mhm. Moussa Bouzos ñoom Babacar bu Mot Lama Mor Diouf képp ku ne Petersen di yëngutu rek rek maa ngi lay ñaan mais jib seen daal yàlla na ko yàlla gën a yokk yokk bépp doomu aadama barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaajëf Aïcha